ci ambiance su mbégte ak contentement le patrouilleur bi di Kayor accosté ca base navale bu amiral Faye Gassama bateau bi nag gudduwaayam toll ci 62 virgule 82 mètres mu yaatu lu toll ci 9 virgule 5 mu am itam capacité charge bu toll ci 735 tonnes ba tax na mu mën a def ci biir géej gi lu toll ci ñaar juróomi bés mu mën a daw itam lu toll ci ñaar fukk ñaari junni kilomètres te du taxaw loole di wone ne jumtuwaay bu am solo la ci marine nationale. bateau bi dafa ngannaayoo ay ngannaay yu xarañ ay canon boole ay missile ak moyen de détection ak ay moyen de communication yu ko tax mu mun a jokkool ak commandement bi fépp fu mu mun a nekk ci géej gi. jumtuwaay boobee nag ñëw rek ngir yokk karange gi ci biir géej gi ak itam ci moomeelu réewu Sénégal. dina def ay mission pour aar réew mi. pour aar lii réew mi moom ci géej gi. maanaam dina saytu lépp luy euh, sécurité nat euh, napp bi dina saytu tamit euh, li jëm ci pétrole bi. ak gaz bi. ci li jëm ci wàllum maintenance ak exploitation nag njiit yi di xam ne lépp yemb na. navire yi ñëw nañ ak pièces de rechange yu bari yoo xam ne euh, yooyu daf koy soxla ça veut dire au fur et à mesure navire bi di fonctionner pièces de rechange yooyu mooy tax ñuy mën a euh, di def ay réparations di mën a def aussi yenn entretien équipage yi aussi euh, domaine boo jël formé nañ leen si. te yooyu mooy permettre. la yenn compétence di leen ko mën a def si biir.